auzu billaahi min seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim wasalaatu wasalaamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin yéen mbokki jullit mbokki jullit ñoo ngi leen siyaar bu baax leen balaax leen balaax tey jégalu kàddu yi comme suñu jëwriñ sëñ Moustapha dafay nekk rek wur ñu woon sax yëkkataay kàddu waaye ndigal moom day caabi bu ëppee du ubbi bu yeesee du ubbi ñoo ngi sant yàlla bu wax di gën a dooleeti santati ndax lii ñu dafa yombul lu toll ne mbooloo mu toll nii ñu teg ko sa loxo day lu jafe day day day lu yomb te jafe waaw ah, may may tàllal loxo di gën a gën a dolli eh, sécurité bi ak dolli eh, pësteef bi ndax itam biñ ko programme itam waxtaan ci dañ ko wax ak suñu mbokki taalibe ak suñ mbokki sëriñ mu lu toll ne sëriñ ah, sëñ Mbàkke sëñ Moor Ñang moom sëriñ moom xalifa sëñ sa moom sëñ Sàmba Ñang ànd ak ñun ak mbooloom ñun ñëpp ñu ñëw taxaw ak mbooloo mépp ñu mobilisé wu ñëw te kenn ku ne wutoo fi lenn lu dul lu baax sakkoo fi lenn lu dul lu baax loolu itam ñu ñu tàllal loxo ñëpp xam ne ñun daal ñu nekk moom wax dëgg yàlla ndimbalal yàlla lañ fi am am nañ fi am nañ fi yëm euh, euh, kii boo xam ne mu leer na lii moom ah, luñu luñu lu ñuy jariñ lay doon te kon itam buñ ko dollee itam ñu li nga xam ne daal moom lañ fiy sàkku daal muy lépp loo nga xam ne nii lañ ko commencé ci bismillahi rahmaani ñu bàyyi ñu àggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin tey ñaan lañ daa wax sëñ Cheikh Fall Guèye rek buñ joxee ndigal ñu ne ko ñu daal sëñ bi li nga xam ne mooy suñ post li nga xam ne mooy suñ soxla téel ñu ruu yi ruu yi rek ñu daal ñun daal ay doomu aadama dongu lañ ay sareet lañ ay mbaam rek lañ lépp loo xam ne daal sëñ bi yëkkati na ko muy muy wàll loo xam ne lu ñu war a jëf la nañu ko wax li ma koy wax rek ruu yi daal bu ñu ko téyelee lépp daal loo xam ne ndax ñun ay teel bi dongu lañ teel bi dongu lañ kon nag bu loolu jàllee ñoo ngi mobiliser wu ñëpp képp koo xam daal yaa ngi ñëw fi lépp loo xam ne yaa ngi ko fi sàkku ci ci ci lu baax yàlla ko yàlla ak Cheikh Adama defal ak te ñaanal sëñ Mountakha moom mu yàgg fi lool te wér te ñaanal sëñ Moustapha mi nga xam ne moom bañ fi duggee ba léegi euh, mu jox ñu loo xam ne ah, day luñ day luñ ndax bi ma ñëwee xase baag si rek damaa def comme doom jëm jur loolu ci moom la bu ko neexoon bu dikkee day toog na le nga ko bi ñëwee sax dafa wàcc toog ci suuf bu ko neexoon day toog ci kaw so loolu lépp itam ñu bëgg ñëpp laajte message ne sëñ Moustapha moom mi nga xam ne ñun boole nañu koog ñun li ñu waraloon ñun def nañ ko ñun ñun moom ñoo ñoo des waaye sëñ Moustapha moom li nga xam ne waraloon na ko ñun def na ko kon nag xam na ñu taxawal foofu ndax balaa gudd rek wasalaamaaleykum wa rahmatulah ñoo xam naa dañuy jox sëñ Moustapha rek mu yeggale lim ci yeggale ko